mbokk yi gannaaw bu nu santee suñu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di dénk suñu bopp di dénk fépp suñu kàddu àgg ñu gën a maase teg suñu tànk ci ragal yàlla muy taqwallah te mooy jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem tomb biñ ci tànn tey ay laaj yu wuute la te bokk fenn fu nu jëm bokk yi buñ jàngee alxuraan danañ ci fekk baatu barke lu ëpp aw yoon maanaam daal ëpp na benn yoon am na fu muy waxee ne waa dëkk bii booba waa dëkk sangam lay waxal suñ maase woon ci gëm yàlla teg seen tànk ci taqwa mooy bàyyi ay tereem te sax ci ay ndigalam dana leen ubbil barke bi ne ci asamaan si ca asamaan sa ak ci suuf si lépp ñeel leen walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakaati min alsamaai wal ard am na fi muy waxee rek ne fi muy waxee itam ne tabaraka smu rabbika dul jalaali wal ikram turu yàlla dafa barkeel waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it nee na ci jëflanteeb adduna tudd na ca diggante jaay ak jënd nee na bu ab jullit di jaay lu mu war a jaay ab jullit soxla ko tamit lu ab jullit war a soxla kiy jaay su waxee dëgg ca la muy jaay ki koy jënd it fas ku yéene jariñoo te yàlla jaamoo ko yàlla nee na su boobaa barke nuyu na leen te du tàggoote ak ñoom waaye su fekkee kiy jaay daa am lu muy nëbbu li muy nëbbu di ko jaay nag mën naa bari mën na caa bokk loo xam ne ab juri waru koo jaay ka koy jëli ci moom it du lu du lu mu war a jënd ñoom ñaar suñ ci jëflante itam safaanub keem nga leen di dal barke du sa wàcc te day yóbbaale lu mu fa fekkoon it te nit ki ame woon ko ci anam gu gu mu ko war a amee Seydina Anas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wax na ko ba tàyyi moom Anas ne ko saa boo génnatee ba agsi sa kër nuyu leen bu doon ci suñu jamono kenn ku ne nga jaar ci aw santam ba mu xam ne nuyu nga ko nee na ko loolu kër gum sax barke duutu fa jóg dugg na fa te duutu fa jóg yaa bunay ida daxalta ala ahlika fa sallim takun barakatan alayka wa ala ahli baytik ci kër kër ji nit dëkke nag ci kaw suuf bu kër këree ba jant bi so waxtu wàccam jot am na si ñooñ dañu naan ngéej bët setaat bañ xëyaat ndax seenub liggéey moo ko laaj waaye liggéey boobu yépp bokk yi la ca ëpp da tax nit di ko liggéey la ca gën a bari mooy dunduk addunaam mu am ca lu ko leer ci ne fii ak mi ngi dund dana am lu mu dunde dana am lu mu dundal ak njabootam dana dim dana dundal dana dimbale it képp koo xam ne ndimbal war na sa diggante ak moom am na ñuy fas lool ci seen liggéey ba tax duñ sañe sax nelaw duñ ko tal waaye su boobaa dañuy gis ne li kër kër ji bari bari day mel ne taxut nit ñi am jàmm ca wut googu ñu koy wut la koy waral mooy barke daf ca dul am laaj yi bari nag bokk na ca mooy bi ñu ko tàmbalee ci jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla koo xam ne ba mu doonee mukallaf ba fii mu nekk bu ñu nee xayya ala salaati xayya ala falaa mu bàyyi lam doon def bu weeru koor jotee mu um ma ngay liggéey di jéem a génne azaka ma ngay jéem a liggéey ngir génne azaka te it mën naa am mas naa dem màkka waaye day mel ne kër këram jooju ci jaamu yàlla gi boo jëflanteeg moom rek rakkaam yi bari yi mën na laa jaaxal jàng alxuraanam gu bari gi mën na laa jaaxal jàng xasidaam gu bari gi mën na laa jaaxal la koy waral mooy jaamu ko daa barkeelut mënu koo tàggaleeg wax muy dañ mënu koo tàggaleeg yéene nit ki ab safaan la ko koy xañ nag mooy da ko dul def te yàlla tax yàlla ca jóge moo tax barke mënu caa nekk yàlla la ci jële moom waaye yàlla du jóge du jóge fenn waaye moom mooy ko ci jële ndax koo xam ne day bëgg ñu naan saa su nekk balaa tëdd danga koy bàyyi muy julli xum wa waxtu wu muy tëdd naafile nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mi ngi gën a ci biir néegub nit ki waaye boo tëddeeg nit ñi kenn du nelaw ndax njàngam alxuraan mu bari ndax njàngam xasida mu bari ak julli yu bari te bu dee yow kenn nga ne watt wattaaral munta am barke ndax yàlla taxut moo tax mag ma bañ ko ne diw de balaa xëy dana jàngub kaamil mu ne mi ngi def lu baax ñu ne ko waaw ndax loolu manu na bala mu sëppi tànkam jàngub kaamil door a dem ndékki ji mu ne ah alxuraan di ku ko wax tàmbalee ko fa mu tàmbalee ba fa mu yam da nga fa yàgg atte bu mandu la waaye bokk yi koo xam ne xëyagut wàcc ay tànkam jàngub kaamilam ku ko fekke ba di ko xam rawati bis bu set kon bokk jaamu yàlla itam li muy taxaw ñun lépp mat naa sellal ndax mu am barke waaye faw ñu laaj suñ diggante ak waxtu yi nga xam ne dañ koy jeexal ci lu bari léeg-léeg ñu jeexal ko ci lu bari ba bu ëllëgee bu ñu layoog moom duñu ca peeseel dara ndax dara yàlla nekku ca loolu nag ñi fanaane nangam wala ñu di ko yendoo nañ ci bàyyi xel bu baax waaye faw ñu laaj barke gi daan ne ci aw ñam aw ñam ku ne xam na ni léegi la lekk gën a bari ci ay jamono lekk gu ne mën naa am am nañu nit mën nañoo am lekk gu ne waaye lekk ga la ñuy bari bari ak lam leen di wër wër téewut ñu dëkkee ab xiif la ko waral mooy lekk ga daa barkeelut dafa barkeelut maanaam dañ ko dañ ko dul lekk ngir jaamoo ko yàlla dañ ko dul lekk ngir di ko jaamoo yàlla waaye faw it ñu laaj ba xam alal alal yi ñuy kër kër di ko denc di ko wut lu tax du doy barke da ca néewul su ma ko bëggee tënk daal mooy dama naan bis bu set ñuy kër kër yi di wut te duñu tax te duñu tax a am bis bu set ñuy jàng di dem ak dikk te duñu tax a xam am na ñooñ dañuy def ñaar fukki at gannaaw buñ dalee boo ko boolee muy ñaar fukki at ak juróom-ñaar diplôme bu nekk ñu lim ko ba ne la am na doctorat mi nga xam ne moom bu fekkee am na yu ko féete kawit bala nga caa jot da ngay am doctorat te kon ginnaaw boo ko amut doo mën a am yooye kon doctorat mooy sa mooy leen jur lu kawe lay doon waaye téewul bu waxee ak yow rek mën nga koo xeeb ndax. njàng wala muy gudd gudd la muy rëy rëy daa barkeelut li ñu mujjee mooy loo wax mu ne est-ce que mën na nekk rek est-ce que mën na nekk rek te moom la ñuy yaakaar mu ubbi ñu waaye ñi ñuy fay weer di ko lim muy lim bu bari am na si ñooñ lañ leen di jox weer wu nekk nit mën naa dund ba faatu te du ko mas a am te ñu leen koy jox weer wu nekk waaye téewul bu ñu leen ko joxee balaa man ñetti fan ñu tàmbalee waata leb kon ñooñu seen alal ja seen weer woowee barkeelut daa barkeelut alal ja bari na waaye barkeelut ndax dara yàlla nekku ca itam ba ñu koy wuuti lañ ko doon wuuti rek mooy la leen taxoon a jóg rek waaye sédduñ ci yàlla benn cër mooy tax du mën a taa léeg-léeg nga dégg ku ne moom loxoom daa bënn lu mu am mu dem na seetaat digganteem ak pas-pasam ak li tax muy wut waaye nag bi ci gën a yéeme mooy koo ne yàlla nga dem aljanna mu ne amiin waaye boo ko ne yàlla nga dee mu ne sama noonu nga te kenn mënta dem aljanna te deewul ba noppi ak dund moo ci gën a yéeme dana gis ñu am juróom fukki at ñii juróom benn fukk ñii juróom ñaar ñii juróom ñett te koo ne ci wan leen ma wan leen ma diw li mu defagun ci dundam duñ la mën a wan dara du doon luy amal njëriñ xeet bi lu doon luy amal njëriñ diine kon gudd fan nekkut ci ay at yu ñuy lim waaye fexe ba bu amee juróom fukk su fi bàyyi ko itam bàyyi fa lu nit ñi jariñoo xeer bi di ko bàyyi jariñoo diina di ko jariñoo loolu mooy dund gu barkeel rawatina nag mu am juróom benn fukki at juróom-ñaar fukk juróom-ñett fukk kon lépp loo xam ne diini nañ ci yàlla teg ne mën nga ko foo seen mun a yëng waaye du barkeel bu ca barke nekkatul nag bu ëllëgee jërul muy séentu lu ko ci yàlla war a fay ëllëg yàlla na ci yàlla musal bu fekkee kuy wax la nit ñi dégg alxuraan mooy ndeyi wax yépp am na kuñ ko ne yow luy sab liggéey mu ne damay wax rek ñu ne ko loo koy firndeel mooy damay jàngale alxuraan ñu ne ko alxuraan di jàngale ay wax la moom faaw nga wax waaye nag alxuraan yàlla daf ne ay wax la waaye barke nga ca la cay def barke mooy lam lay wax nga di ko topp lam lay tare nga di ko bàyyi hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabiuuhu wattaqu laallakum turhamuun kon alxuraan barkeel gi wax barkeel bu dee alxuraan lañ jël mooy di topp lim lay digal di bàyyi lim lay tere moo ne barke it day feeñ ba ci koy àndal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci ku ñu àndal mooy nit ku baax koo xam ne boo toogee ak moom sa diine dana dolliku sa xam-xam adduna dana dolliku moom la sëriñ bi wax ne wala tusaaxib gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tunal muraad booy tànn grand place tànn grand place boo xam ne boo fa jógee sa xam-xam adduna da nga ci gën a ubbiku da nga gën a yeewu ci adduna gën a yeewu ci sa diggante ak yàlla kon ànd boobu barke mën na caa am waaye ànd boo xam ne bii danga naan tey moom la mu gën ñëpp bu ëllëgee nga ne damaa juumoon moo yées ñëpp wala tey nga ne diw moo yées ñëpp ñëpp jàpp lool ñu la gëm ñëpp jàpp ko bu ëllëgee nga ne moo gën ñëpp léegi ban lañ ci jàpp ba nga waxoon démb wala ba nga waxoon tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it nee na li gën a teg neex a teg loxo mooy rek fu ngeen di lekke ngeen boo mbooloo mi ñu sukk ci lenn ndam nga bokk ñoom di lekk lekk ko nga barke dana ca am waaye nee na su ngeen dee ku nekk tibb ci palaatam di koros koros yi mën nañuy koros koros lu yàgg am kuy dollee ko dolliwaat bañ naan dafa bëgg lekk te fekk la muy lekk moo barkeelut lekk du lu ñuy tibb di sex waaye cim xel lay nekk bu fekkee tiim nañ ko ñëpp tiimandoo ko du yorandoo di yukkee di yukkeendoo ku ne am xelam dana dal ne ñun ñëpp mën nañ see añ lii de lii de doy nañ ñun ñëpp ku ci nekk laal la mbar a laal am na jën dara ju mag ju nekkoon Tuubaa ñu ngi fi ba tey sax waaye danañ def ñooña bu ñuy jëfandiku day am ku leen taxaw tiim leen ku tibb bu mag mu ne la wàññil bu ko defee bu dellusiwaatee mu ne laalal nàngam ba ba ndab li daj am na ci balaa dil siwaat ci yow fekk doyal nga ñu tegal ko ñeneen loolu ñam bu barkeel la ndax dañ koo yéeneente mooy fi muy waxe ne yonent bi moo ne wa fi ijtimaai ala taami baraka wa fi tafarruqi nazun nazgun laha qila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya rasul allah inna naakul wala nashba qal falaalakum taftariquun qaalu naam qaal fajtamicuu ala tacaamikum wadkuru sma allahi yubaariku lakum fii kon bokk li ci gën a yomb rek mooy bokk di lekk waaye am na ñoo xam ne dañuy xool ne ku fa nekk ñu ne am na gaa yu fa ne de ñu ne ko na xaartuus ndax man dama xiifa gut bokk na ko bu ñu ko tënkee mooy ragal yàlla ci boppam lu waay mën a yëngu ak yëngu ba lu mu rëy rëy moo xam muy koy jàng di wut xam-xam wala kuy wut alal jum dunde dundal ci njabootam te yàlla rek te te te te war a war a taxit na ca jiital ne lii daf ci séentu ak pay bu ëllëgee su boobaa dana barkeel bu fekkee at yi ma doon waxtaane ne léegi at yi ma tudd léegi ne at yu bari amul solo ci dund bu ñu waxee ne ku ñuy wax Jaafar doomi Abu Talib bokk génnant bi seen baay yi bokk seen wajur yi bokk maanaam bi jullit yi jëkkee gàddaay ci ndigalu yonent bi dem Éthiopie Afrique jëm si Afrique jëm si Afrique bu ñu ko moomale rek xabasa waaye yonent bi digle woon nañu gàddaay jëm Afrique ngir yaakaar fa ku ko fa wal kon africain yi sañ nañu yëkkati ay mbagg ne ba yonent bi jaaxlee ci njabootam gii Afrique la na yabal kon dund ay at yu bari amul njariñ ci dund waaye barkeel moo ca am solo bàyyi fi lu ñuy waxtaan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu laay jeexale daana def bu ñu nee may nañ jëw ak jiw lam ciy jëkk a ñaan mooy yàlla na yàlla def barke ci diggante boobee baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa baynakuma fi xayr barkeb sëy boobu muy wax nag du alal ju bari yu ñu ko def du doom yu bari du kër yu bari waaye mooy ku ca nekk rek jub kocc jub xocc sëy boobu sax wax na ca ne sëy bi ëpp barke mooy gëj ba ca gën a néew lu ñu ca def a'zamu nisaai barakatan aysarahunna maunatan kon yàlla nu yàlla defal barke ci suñuy jéego ak suñu dal te dimbali ñu ba teg ñu ci taqwa te bañ fa jóge benn yoon bu ma ko tënkee daal mooy nit ñi sañ lañoo laaj lu tax nit ñi xëyee ko wàcc di gën a bëgg alal la ñuy amee ku si néew daa barkeelut dafa barkeelut waaye lu tax nit ñi jàng ba ne arrata duñu xam dara jàngawu ma barkeerut yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li